Sénégal yi nii ah. léegi ci démb fii nii la meloon tey tamit fii nii la melaat ah xoolal ko li ko gisee yi amuñu suñu jaar xoolal tata bi dafa de ñu nii dañuy xuus am ñu yoo ak yow maa ngi nii ci biir ndox mi ci xuus jigéen yi kenn mënuñu ñëw kenn jigéen ko daal mën nañu jàll. day na waar Sénégal yi ñu ngeen ko ngeen ko c'est ça léegi lii di dox ñoom lii day na waar daal Sénégal boo ñu jëndee dañ nekk mooy fii kenn mënu fi jàll. c'est bizarre ah. comment se fait-il que en deux mille vingt Sénégal moom. bu tawee kenn du am foo jàll c'est bizarre day na waar quoi. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi nii ah fii ci Castor jàpp ñaari station yeeg Sénélec bi kenn mënu fi jàll maa ngi nii ci biir Sénélec bi laa dugg pour mën a am yoon bu ma jaar dañuy day na waar ah. demee ba deux mille vingt fii nii loolay wan ni nguur gi amuñu jom amuñu benn jom topp seen campagne yi rek ñàkk jom lañ def.